yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci butim réew ak la télé du peuple Songuanté TV. Ligue Brose Sky cosmétique di jaay ay parfum yu baax ay original parfum. Sosim Afrique société de construction immobilière africaine. ko Market l'expert en paiement multiple Aquaterra ndox mi wóor te leer l'écran bu tàngee neex bu seddee neex KPay transfert d'argent bi gën a wóor ak kaay ma ñoo leen di may li ci yéene kaay bismillah Sénégal jóg leen am na lu xew la soleil suñu jantu réew nee na tàccu leen Aly Ngouille Ndiaye waay wala ngeen tàccu président Macky Sall ndax li xew soleil suñu jant réew ne vingt cinq mille tonnes engrais bu Maroc moo ñëw ci Sénégal ñu wane ci sa xëtam mu njëkk ci soleil Aly Ngouille Ndiaye mu taxaw ak marocain yi kenn ku ci nekk nag di taxaw di kaas marocain kenn ku ci nekk di taxaw di wax engrais bu bari bi nga xam ni ñëw na ci réew mi waaye la soleil suñu jant réew ne du kenn lañ koy jox ku dul petite ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy petite producteurs yi ñi nga xamante ne nii amuñu lu ñu jëndee jiw loolu la soleil suñu jant réew wax li am l'observateur yéen a kaay ne téeméeri milliards lañu fell ci alalu réew mi ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi dund gi cher na lool muy loi de finance 2023 l' observateur yéene kaay ne fan la Sénégal jëlee yooyu la koppar ñaari milliards yi ñu économiser ci woto yi nga xam ne moom lañ doon jox député yi primature ak trésor bu Amadou Ba l' observateur yéene kaay ne impact mooy imprimerie bu bees bi nga xam ni moom la ma Madjiguène Ndour sos jóge na tournée internationale Macky Sall moom mooy inauguré boobule usine l' observateur yéene kaay moo ñu ko wax am na ab usine boo xam ni moom la ñu bëgg a tabax fële ca Sindia Embrigo la fa indi l'info le jour moo ñu ko wax euh, ca Sindia ñu bari ci conseil nee na ñu yëguñu dañoo jékki-jékki rek dégg tell ñu ne damm na waaye adjoint au maire ba ne ñëpp yëg nañu ko ndax lii intérêt waa Sindia la intérêt bi nga xam ni moom la ñu amoon ci guerre golf bi trente ans ngi nii ba léegi amul kenn koo xam ne bokkoon nga ca te ñu mën la fay ca xaalis loolu moo tax le quotidien yéen a kaay ne crash sans secours ñi nga xam ne ñoom ñooy victimes yi nan lañ leen di joxe seen i koppar ah, lii dossier baa nga ca table njiitu réew mi président Macky Sall waaye Le Quotidien kaay na li ciy ñuul mooy lii di commission ba nga xam ne moom la ñu taxawaloon commission bi tas nañu ko tas wàllu Sénégal déedéet waa wàllu Sénégal li ñu bëgg mooy balaa ñuy voté benn budget kii di Amadou Ba di premier ministre bi dana ñëw taxaw fa nga xam ne moom mooy assemblée nationale def déclaration de politique générale loolu moo tax Sud Quotidien ne wàllu en mode blocage blocage dina am de ci réew mi L'As Quotidien ne li ko waral mooy am carte d'identité mbaa passeport nekk na loo xam ne lu jafe la ci réewum Sénégal waaye jàpp leen ni L'As Quotidien nee na loolu lépp tey bu mu leen am nañ ci jóg nag taxaw ndax am na ci ñoo xamante ne nii seeni kayit yi am na jafe-jafe jafe-jafe gi mu am muy Aliou Sall nekk ki nga xam ni moom mooy eh, rakku njiitu réew mi président Macky Sall borom jox ñu suñu quatre cent mille enquête quotidien ne jafe-jafe la am ndax dañu ko lamine ca géejawaay am na ndomba tànk gi mu amoon ci état bi loolu lépp tey génne nañu ko enquête quotidien ne moo tax mi ngi génn ànd ak i mbokkam ci kuréel gi nga xam ni moom la sos ngir wër kër yi ngir ñu jàppalewaat ko ba mu dellu soit fa mu nekkoon moo tax ci biir enquête quotidien tey rakk président Macky Sall jaa ngi jaaxle dëgg mu Walf Quotidien ne fédération sénégalaise bu football dañoo jaaxle de moo ñu wooye woolu douane ngir ñu jàppale leen ci contrefaçon yi nga xam ne moom mooy mayo Sénégal yi ñu doon jaay ci réew mi moo tax mille mayo jàpp nañ leen jàpp leen li nekk ci biir Les Échos yéene kaay Sénégal ngir mu dem ci coupe du monde bi 14 milliards de francs CFA la soxla njiitu fédération sénégalaise bu football nataalam mi ngi ne fang ci xët mu njëkk Les Échos yéene kaay Vox Populi dikk ak ñun ci ki nga xamante ne nii docteur Malick Diop lay wuyoo mooy maire bu Thiès jàpp na ni am na ci ñu bari ñoo xam ne ñi ngi woon ci biir camp yi yeewi ak as yeewi askan wi bëgguñu woon mu doon candidat wala wóoluwuñu ko woon nee na kenn dong ko woolu woon muy président Malick Gakou mi nga xam ne ñëw na taxaw temm ne ko kenn ci Thiès bëggu la gars yi ñu bëgguñu nga doon candidat waaye man dinaa la jàppale ci sama ay koppar docteur Babacar Diop moo ko wax ci biir Vox Populi Vox Populi nañu kii di Malick Gakou pare na ngir élection yi am ci atum 2024 déglu leen mbokk yi source a nee na défi yi nga xam ni moom la Sénégal am ngir ko gépp ngépp jigéen boo xam ni ëmm nga doo ci faatu mbaa sa du ci faatu source a waxtaan ci ak ay kàngam tey mbokk yi waxtaan wi kañ mooy li lii quotidien wax président Abdoulaye wadd le meilleur président de tous les temps la wane ci xëtam mu njëkk mu ne wàllu fixe ses règles du jeu balaa ñuy wote benn budget il faut Amadou Ba premier ministre ñëw taxaw wax ak ñoom wax ji kañ mooy 24 heures chrono nee na président Macky Sall mi nga xam ne dafa bëgg laal ñetteelu manda am na ñu nekk ci kaam d'accord nañu ñeneen ñi ca des d'accordu ñu waaye le grand panel ne li ci gën a garaaw mooy tii di Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne jóg na taxaw temm ne moom dañu koo tuumaal waaye lañu ko tuumaal yëpp dara nekku ci li mu daj ci Covid gi jafe-jafe gi mu am lépp mi ngi ci biir le grand panel libération yéene kaay ne beeda aan nañ ci wax nag ndax jamono jii ñuy wax ak yéen ñi gañe woon marché baa ngi taxaw amuñu xaalis bu ñu ko liggéeyee scandale la ko libération yéene kaay tuddee scandale bi nga xam ni mooy am kañ mooy li nekk ci biir dépêche yéene kaay mu ne xalam demoon na bay neex buum nga dog Youssou maa jigéen Ndour diggante mag Macky Sall ñëpp xam nañu ko waaye bañ na ni du cautionné mukk fu Macky Sall di laajee troisième mandat loolu du samay kàddu la dépêche yéene kaay moo ñu ko wax l'exclusive yéene kaay dikk ak ñun ci candidature Macky Sall bi nga xam ni waa Benno sëggal astafirullah waa Benno sigil Sénégal jàppale nañ ko rawatina jigéen ñi. waaye Pastef dañ ko disqualifié loolu lañ l'exécutif yéene kaay xamal si wàllu tàggat yaram génération foot ak Casa ñooy daje muy choc bi nga xam ni ñëpp ngi koy xaar mi ngi ci biir la tribune des sports record yéene kaay ne Angleterre Chelsea mooy jàkkaarloog Manchester United te ku ne Chelsea. il faut nga wax Kalidou Koulibaly mi nga xam ni mooy capitaine équipe nationale bu Sénégal mbokk yi déglu leen déglooti leen déglu leen déglooti leen am na lu xew mbokk yi comme dañoo dugg ci semaine bi ñetti fait divers laa leen di may bi ci njëkk mi ngi ci biir l'observateur yéene kaay kii ci histoire buy buy buy jox ma sama buy ak bul ma jox sama buy rek moo tax mu lakk ab jarbaatam lakk ab tàntaam ci ab daf leen wiccax kuddu gi boobu mooy benn ñaareel baa ngi nii mi ngi ci biir les échos yenekaay mu ne kii ab drogué la dafa drogué ba mënul gis 19 ans la am rey na tante ji ci kafe Touba dong doo ma tàngalal kafe bi ma tàngalal la kafe bi mu rey tante ji mais bii moo gën a garaaw fukki junni yoon mbokk yi bii damaa bëgg ngeen xam ni mooy bi naan daa ji sangoo saafara si benn jigéen la ju am jëkkër dem ci ab hôtel di fa siim mari ngaañ moom ak faram am na jëkkër de mbokk yi ba muy seeg waa ji ba mu koy séq ak waa ji xam na xaw ma neexaaya ko jàpp xaw ma lu ko jàpp mu faatu dee na waa ji ci kawam lañu fekk ndaw si mu dee waaye nag waa ji jamono jii ñuy wax ak yéen caabi féete nekk ginnaaw ndaw sànga yomal xiyam waaye kii bu demee lu muy wax yàlla mbokk yi li ci yéene kaay yaa ngi noonu jàpp leen yii ci samedi ji ak dimaas ji ba altine incha allahu rabbi cœur est saturé de plaisir quand je bois l'eau pure et si légère Aquaterra sponsor officiel de votre santé Aquaterra moom lay naan fii lañu ko defaree ci réew mi ay doomu réew mi ñoo koy liggéey ndox daal du romb Aquaterra sel na neex na baax na yiw na dal na te it daf may dalal Aquaterra ndox mu sell Sénégal compagnie coopération Chine Sénégal lu doy waar la di wax am de jànq ndaw comme nga ko waxee rek affaire bu doy doy waar fii maanaam mooy Chine ci biir Sénégal lan mooy Chine ci biir Sénégal dañoo jël Chine indi Sénégal wala lan la noonu mun nañ wax loolu ba tey de man su ma dara nekk Chine nekk Sénégal noo ma koy defal. te li koy si njëg bu yomb c'est-à-dire mi nga doon déplacé dem Chine. Ah. fekk sa billet d'avion bi tout ça même prix nga am kon da nga ma da da nga ma mooy billet d'avion te li ñuy li ngay jëndee Chine damay jaay. effectivement kon yow yaay tay de projet Sénégal compagnie. Ah mais lan ak lan ngay def da ngay def groupage conteneur. comme ni nga ko waxee rek groupage day def aussi di la chargé sa conteneur def ko surtout muy mbaa loolu cher ci xaalis. plomberie sanitaire. da ngay def carrelage. a ah oui mobilier ak lumière. menuiserie bois ak métallique. lépp lu may soxla si wàllum kër. même sax lal aussi dañ koy jaay. et ci biir kër. lépp lu muy lekk lu muy nga Rose Sénégal compagnie di daw. adresse bi. coono wàcc na adresse bi fu yomb la mooy croisement Dendeye bi foo Sénégal compagnie xanaa ñun nekk ñu parcelle ak fan.

ak kaay ma ñoo leen doon may li ci